maa ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax amaat naa kontaan ak mbégte bu baax a baax ni moo ko faral di def ak kilifa yëpp tey nag mu fas yéene dalal fii benn kàngam di kilifa nga xam ne kenn du ko présenté ci bi ak euh, bi réew mi ak bitim réew ñu koy tuddee Serigne Cissé mu Serigne ñu ngi koy char bu baax nag tey nag euh, ma fas yéene waxtaan ak moom ci lépp loo xam ne rek jëm na ci xam-xam jëmale ko ci jaamu yàlla yi aussi nga xam ne saa su nekk ñu ngi koy seet si am tawat yu ñu koy jàmbat mu leen koy fajal bu baax a baax Serigne Cissé dañuy lay bàyyi nga nuyoo ko mbokk askan bi bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin rabbi sarah li sadri li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli subhanaka la hilma ma halamtana innaka anta yu baax yi bu nu sante yàlla julli ci sang-sang yi muy sayduna muhammad ñoo ngi nuyu nuyu bi gën a sakkan gën a yell muy baatub asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu Seydina Cheikh Mohamed jërëjëf Tarkalla ñu ngi lay fay Serigne Cissé mu Serigne Babacar am na solo sëñ yooyu ñu ngi lay fay bu baax baax am ci kontaan xam naa di nga ma tontu ci sa sama biiri laaj. ndax bëggoon naa xam fan yii yëpp fan nga ñu réeroon gëj nañ laa gis ci biir euh, internet bi di ñu wax lan moo xewoon. acca fi may tàmbalee te tey nag euh, mën naa ne weer wi su gi naan di weeru gàmm gi lii di fukki fanu burdu bi dañ daan gis nga ci def ay xéwal jëmale ko fee di kër sëriñ ba di Tiwaawan di kër Serigne euh, Babacar Sy nga xam xam ne yu barkeel la la yoo xam ne ñu yu tarkal la yoo xam ne kenn du ko naatable ñëpp ràññeeku lañ ko ren jii nag ma bëggoon a xam ndax defaat nga ko wala fii nga ko def yemale ko fii ci Dakar sëñ Cissé. waaw fa tabaarakallaahu naa seex. Mhm. question boobu mos a laaj neex na ma waaye bii daf ma cee gënal. ndax bu dee yow danga di jenn jëmm. kerek bi borom bi defee nga gane jamono. sa baay am tur bu mu nodd ci say nopp nga fekk baayu jàmbur jël turam teg ko ci sa tur àdduna di la ko wooye boo ma ci laajee dama ciy sawar bu weeru gàmm mosaana teru fukki fan lañuy ñuy burdu ci biir fukki fan yooyee jumaay Cheikh Seydi Hadj Malick jumaay Serigne Babacar Sy dëgg ñuy defar ay xéewal yi nga xam ne tolloo na noog moom mm-hmm. te di ko def ci xol bu laab mm-hmm. ñi koy jof di ko jox ñi nekk ci jumaa yi di burdu mm-hmm. ñu koy xewloo loolu la ñu daan def dëgg la ren nag ba nu demee ba nga xam ne sëriñ bi dafa amee ndigal lu mu joxe demunu Tiwaawan waaye lenn ci gox yi ci Dakar ñu xam leen ne ñoo ngi buur burde ci seen i bërëb ñu ngi ko fa yóbbu mhm. waaye fii lañ ko yemale demunu Tiwaawan waaye ñu ngi koy def fii ci Ndakaar sëy naa Cheikh jërëjëf mhm. acca dinaa des foofu tuuti ma laaj la ndax su ma la laajee war naa laa laaj mhm. ndax yow taalibe bu mag nga bu ràññeeku nga kenn du ko naa tableté ana lan moo waral sëriñ bi jël ndigal lii ren ne du gàmmu ñu bëri nag ñu ngi naan covid 19 bi boo tax mais ñenn ñi nanguwuñu lan lalu ci biir ba nanguwut def gàmmu gi ren xam nga sëy naa Cheikh man dama nangul kilifa goo xam ne day jël tànkam teg ko ci sunna mhm. ginnaaw boo tegee sa tànk ci sunna mhm. nga jël sa xel mi di ko utiliser woo ndax defe naa ne jamono bi ñuy def confirmant bu dee programme bi gën a rëy ci àdduna mhm. sëriñ Babacar Mansour moo ko njëkk a annulé mooy siyaare général sama góor gi seexul xalifa sëriñ kër Si bi nu seetloo ci sunu jamono ba léegi. Mm-hmm. ñoo ngi doog a annulé siyaare général Serigne Babacar Sy Mansour. Mm-hmm. na nit ñi def attention ci moom. Mm-hmm. ndax la ndax ni ko borom bi def. jëmm mën naa alak ñu bëri. wax naa ne boromu martaba. tooñ ko mën na laa baal waaye martaba du baale. te Serigne Babacar. Mhm. kii la ñu ko tuddee direct. xalifa bi. maam mhm. Mansour baayam. te maam Mansour moomu. Mhm. boo daan seet baatin ak wilaya. da cee toogaan. kom ci anam bi ñuy waxee. ñun ñuy dugal par benn nit. ci nit ku amee rab dof. baayam téeméeri dof dañ daan taxaw fii moom xalifa bi. bu fajee benn dof téeméer yëpp wér. kon xalifa bi. Mhm. bu toogee ne yéen sama njaboot maa ngi fii ci Tiwaawan yéen ngi Ndakaaru. Mhm. ñii ngi bitim réew. Mhm. ñii ngi Saalum. kenn ku ne da ma daan fekki si waaye ren bëgg naa kenn ku ne fa nga toog na fa toog màggal fa guddi yonent bi sallallahu alayhi wa ne bu leen sëriñ bi dane kenn ku ne fa nga toog nang fa toog màggal fa guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng alquran bàkk yonent bi waxtaanee jikkoom ya lii la sëriñ bi santaane mhm. loola nag mhm. bi Seydi Hadj Malick di def gàmmoom moom ak alxaaji Rawxaan Ngom ca ñoo ko doon def bu Seydi Hadj Malick jëlee xaaj suuf bi mhm. maam Rawxaan jël xaaj kaw bi ñu ñu dajee balaa ñuy wax salaatu xayru mina nawmi mhm. bàqara ba minal jinnati daal di daanu nu jàng xat mu ga ñaan ñu dem ba jamono ñuy daje ci sëwi si Seydi Hadj Malick ba mhm. Seydi Hadj Malick bi ne téere bu rëy mhm. waaye teg ko fa ñu jël burdu nekk ca mawlaaya sëlli wa sëllim te mawlaaya sëlli wa sëllim joojee ko ko bind Maodo bind na lu gën a yéeme loolu ci juddug yonent bi hmm? waaye bëgg a fësal fi jàmbur a tax mu jël loola hmm. te kon sëriñ kër si Mansour bu la seex nag bu la yàlla boole benn sëriñ boo xam ne tey ci tey ji hmm. dafa woote ci Tiwaawan ñu dem Tiwaawan bëgg koo gis mënuñu koo gis ñu ne lu tax mënuñu koo gis ñu ne lu xew kon na wax njaboot gi ne kenn ku ne fa nga nekk na nga ka fa defee ci biir defin wa nañ ko daan defee ci Tiwaawan nañ ko fa defee Tiwaawan la nu nekkee woon ñu ngi ca. ndax bu nu mosaan a burde. Mhm. day jël ci njaboot gi kenn mu waxtaan tey. Mhm, mhm. ci li jamono ji soxla. looloo ngi dox ba bis yàlla tey ji ñu ngay burde ca Tiwaawan. njaboot gaa ngi burde fii kon daal waxi kilifa li ma ci xam. ci boo ko yaakaaree te doyloo ko muy dëgg. lu mu wax na la doy. bu ne na bopp yi tegee ci tali bi sax na bopp yi tegee ci tali bi. tarkalla fa tabaarakallah jërëjëf sëñ Cissé tegal foofu sa loxo ñu njëkkanteeg euh, suñu waxtu mën a dugg suñu question ndax mhm. damay des tuuti ci teewaawoon. ci mhm. teewaawoon laay dellusi du ma nee teewaawoon nag euh, moom. comme ni mu ko waxee nu taalibe yëpp ñu ko déggal nañu gàmmoo ku ne ci fi nga nekk. Mhm. Euh, ay mbokkam ay doom xaw ma doomi bàyyi laa ko mën a waxee. xaw ma doomi ndey ñoom dinañ gàmm. mooy ñi nga xam ne ñu ngi koy defee ca champ de course bi. ñu defee at mu jot. ndax loolu mënta indi féewaloo ci seen diggante. xam nga kër Cheikh Seydi Hadj li ma la wax. Mhm. la Habib Sarr waxoon moo ca ne. Habib Sarr nee na Seydi Hadj boo nekkee ci biir këram mën na la jox fas jox la pepp jëndal la karawaas ngay féq foog ne yow la du yow nga foog ne yaay doxal say mbir foog ne yow la àdduna jay la nga foog ne yow la te du yow moo tax kër Cheikh Seydi Hadj Malick daal man Serigne Cissé mu Serigne Babacar. Mhm. cee ñëlee ngay gàmm fii ñële gàmme wuñ fële mhm. sëriñ Cissé de dégg na li xalifa bi wax mhm. te man maa ngi ci li xalifa bi wax ndax man ku sant si loo wax rek maa nga ca ku sant si mhm. loo wax maa nga ca ku sant si loo wax maa ca ndax man ci seen barke laay doxalee am na solo sëñ naa seex jërëjëf waaw jërëjëf euh, Serigne Cissé mu Serigne Babacar am na solo ci ponk yooyu ñu tàmbalee duggoon ci am liñ ci doon leeral di ci waxtaane bu baax a baax damay jàll dugg ci sama ñaareelu question mu di lan damay delsi ci liñ naan seet te am na loo xam ne yàlla may na la ko ci seet nag dañ ciy delsiwaat ci biir ñu càmbar ko gën ko xóotal taj jeex bi bu baax a baax ngir ñi ñuy déglu bu baax nga delsi ci waat sëñ naa seex mm-hmm. gis nga lii ma kurus la. kurus la. Mhm. gis nga man liggéey naa ci rajo six yoo xam ne heure bu ne seet naa ko te ku ma mos a seetal xaw ma sa tur. Mhm. foo mën a nekk boo xasee ba dugg ci serveur ba jot. dama mhm. daan toog neuf ci suba ba dix neuf damay toog di seet. te ku woote soxlawu ma lenn lu dul sa date de naissance. kese rek. te boo ne asalaamaaleykum ba réew mi yëpp di la déglu dama naan la luy dégg na ko réew mi dégg. lu dul dëgg it. Mhm. amal fulla ju doy ne ñu dëgg nit ñi xam ne kii toog li muy wax xamut ko. yàlla dimbale ñu ci wàllum seet. Mhm. Basiira dafa am yéeg yëg am. kii nag gën a tiim soog a mën a wax. Mhm. kii dina sànni petaaw soog a mën a wax. kii tiim ndox soog a mën a wax. kii nga ne ko asalaamaaleykum mu ni la lii nga sol sa jafe-jafe nag lii la bu dul dëgg àdduna may déglu waxal am bi dimbale ñi ci yooyu dama ne bu bàkku waroon ci wàllum seet ma bàkku ci maanaam baatub seet sëy naa seex du lenn am nga loo wumpale ci sa bopp bëgg koo xam lan lañ koy génnee mu ko mooy wax ji moom lañ bëgg a xam. moom lañ bëgg a xam. Mhm. sëriñ Cissé ne kurusam gii bu ci waxee lam ci wax lu mu bëgg a xam ci yow xam ko ci yow sa date de naissance say at. Mhm. li li jàll. Mhm. ak li ñëwagul. bu ma ko xamee ci yow wax looloo mosu dégg ci sa àdduna man sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar Sy laaju ma la sa turu yaay. laaju la sa turu baay. laajuma la benn tur xam nga fan laa soxlaa tur. buñ seqee liggéey. waaye bu dee ci cadre seet kese namal jur nee ma maa nga am trente ans nga woo ma. léegoo léeg ci am na ñoo xam ne ñi ma miin a seetal. Mhm. dama naan la ba ma yónnee benn dërëm bàyyil ma seetal la ba pare. billahi la si laa ilaha illa hu ma seetal la ba pare. Mhm. wax la lu la nit mos wax. bu la nit liggéeyee sax dinaa la wax que la liggéey fu mu ne. tegal foofu sa baaraam ci côté liggéey boobu foofu la ñuy desandi muy foofu nga daaneel sa kàddu nit ku ñu liggéey. Uh-huh. nan nga mën a def ba xam ko soo ne ko jaxarañ xam ne kii dañ koo liggéey ak nan nga ko mën a seppee ba mu ci moom. jaxarañ ku ñëw lay doon waaye ki nga xam ne dalaa woo nekk fu sori. Hmm. yàlla dimbale la téléphone ngeen déggante ci mbaaxum yàlla. Hmm. nga ne ko yow de sa yaram sàngam ak sàngam te yaa ngi dund sàngam guddi nangam ak nangam ak lay daal. est-ce que këraat nit ñàkkul fu la nga wax ko lum dund mu ne la waaw. ku ko nangu ñàkk fayda mhm. man lii lay dund ak nit ñi. bu dee liggéey biñ la liggéey fas la dama la koy wax. bu dee liggéey biñ la liggéey xaatim lañ dagg musalas. Mhm. sëf ko dama la koy wax ba wax la ka ko def. nit ku ñu liggéey mën nga koo seetal ba gis ko ne ko diw moo la liggéey. billahi lazi laa ilaaha illaa huwa. est-ce que. seexul xalifaa ngi nii moom rek laa doyloo moom rek laa yaakaar sama ginnaaw. wallahi alhasim seet li ma ciy gis bu ma ko doon wax chaque jour réew mi di yëngu. harkala li ma borom bi di may ci yëg-yëg wër na Serigne kër si bu ma ko doon wax réew mi day yëngu. Mm-hmm. gis nga jamono bi président Macky Sall nekkee ci campagne am ñii élection yu xumb trop. Mhm. yu mujj yi wala. yu mujj yii. Mhm. bi mu toogee toogaayam bii ñu naan ñeneen danañ ko doon ak nangam. waaw bi ma déclaré def déclaration ne. Mhm. borom bi xamal na ma kan mooy war a duggaat ca pale ba. réew mi di yëngatu. ma ne leen borom bee ma ko xamal. avant ñuy déclaré. avant ñuy déclaré. mboolem wuy politique ku ne woo ma. ku ma ci woo du ma jox ñaar dërëm. Mhm. na ma man nag ma ne ko doo neexle man nag doo neexle ba ci Marème Faye Sall. Mhm. benn jigéenam ci jigéenu mbootaay kenn moo ci ñëw sama kër. na ma sëriñ bi li nga wax moo ñu yëkkati booba maa nga parcelle nekkuma mamel. Mhm. ma ne ko borom bi xamal na ma ko mooy xamle xamal na ma kii dellu pale. mu ne la mooy kan. mooy kan ma wax ko lay xew toog. ndax xam nga bi ma ko borom bi xamalee. Mhm. say naa Cheikh mënoon naa ko nodd réew mi yëg ko waaye ñi la safoo bu baree. Mhm. ñi lay tiitaroo bu baree. waroo fàkkal sa bopp noonu. Mhm. waaye li ma borom bi di xamal. ci wàllu yëg-yëg. ci wàllu jeneer. léegoo li ma dajeeg nit ci mbedd yërëm ko xool ko rek sama yaram daw. tarkalla xanaa ci wàllu gis-gis côté liggéey ba du jafe comme ñi nga xam ne ñu ngi fekkoo xam nga dañoo bëgg nguur nguur moom da nga ciy nekk moom doo ci mos a doyal rawatina xam ne mosuñoo mos te bëgg nañoo mos xanaa ñooñu ko la ci seet ah, nga hmm. dana am nit ñoo xam ne. Hmm. bu ma ko bu ma ko yar mayoon ma cité la ay tur diw dana ñëw ba ci man na ma sëriñ bi man de dama bëgg a ràlli dem ci parti sàngam ma ne ko boo fa demee du baax. <laughs> moom mu dëgër bopp dem. Hmm. ka mu yaakaar ba toppi ko ko koy jaxase affaire ya bu ko defee mu ne ma sëriñ bi doon ni nit la dama waxeewul nafsu bakkan mhm. damay wax ngir yéeg-yéeg ak sama digganteeg sama borom rawatina ki ma doyloo muy seexul xalifa sëriñ Babacar Si mii <laughs> waaye wàllu wi mhm. seex def naa ci lu ne gis nga sunu mag si ak Sénégal bi passé coupe d'Afrique coupe du mhm. monde bi passé wax naa ne man di li ma jaaxal ci match bi gis naa Marocain yi yor benn sëriñ boo xam ne dafa leel moom rek ma jaaxal ci match bi waaye man li ma gëm man sëriñ si sama sëriñ Babacar. Mhm. mooy ku buy ñëw. waaye nag gis naa ñu yor benn sëriñ boo xam ne fa tabaarakallaahu jaaxal na ma. kàngam la tarkalla. suñ match ak Gana nu mu tuddati dëkk bu mën a xërëm boobu. bene réew mi yëngatu ku ne di daw ma ne leen borom ku ne man borom kënu. Mhm. maak ñoom Sénégal dalee ko match par match ma garanti leen ko ba final falaa rëccanteeg ñoom coow li bari lool. final ba tax suuf. preuve baa ngi ci réew mi man lu ma leen wax bu ngeen demee internet fekk ko fa. am na solo man lu ma wax ne nii nii la ci wàllum seet dama koo mën. tarkal dama koo xam. Mhm. te ki fëgg sama bopp kum fëgg sa bopp loo wax du jaaf. muy sëriñ Mansour borom daara yi. tarkal sëy naa Cheikh. jërëjëf an ana kon tey lan ngay daaneele sa kàddu ci tàggatoo. tàggatoo gi mooy ne. Mhm. damay dégg nit ñi ragal ne diw dañ koo liggéey dañ koo ragal. Mhm. liggéey du dara. dindi ko comme bonjour toj liggéey comme bonjour. déet da day ko mu xasadal rek ñoom dañuy xaw a jaaxle. xam nga lu xam nga lu sonnal nit ñi te ñu te koy caxanee. Mhm. mooy bii làmmeñ. ndaw ñi daanu ñëpp moo leen daaneel mooy cat. sëriñ bi lu ma dugg du sotti. lenn waralul ko sëriñ bi lu ma am mu yàqu. a waralul ko lu dul làmmiñu doomu mhm. adama yi mhm. ku xam fooy teg sa tànk ba yàlla dimbali la ba nga dox sëriñ bu am basira wax la li nga war a def ak sarax yi nga war a génne mhm. doo ñee sa morom yàlla nu yàlla dimbali amiin yàlla na nu yàlla taxawu yàlla na nu yàlla suturaal yàlla na yàlla faj aajo yi yàlla delloo si jàmm yokk jàmm ji tàppe xol yi kilifa yi ci réew mi yàlla na leen fi yàlla bàyyi ñi dem it mhm. yàlla yàlla yërëm leen ñi caabi féete ginnaaw yàlla na nu génn mhm. ñi feebar yàlla na nu wér ñi bëgg jëkkër yàlla na nu am jëkkër ñi bëgg jabar am jabar ci doole yonent yàlla Muhammad waaxiru dahwaana alhamdulillahi rabbil aalamiin wa salaamu aleykum jërë ngeen jëf